Bismillah, mbokk Dalen dal C'est une revue d'actualité de ce vendredi 6 juillet 2021 ñu dooree ko ak football ak équipe nationale locale bi le Sénégal fële ne Kosova, Kosofa dina dal di finale de ci demi compétition compétition Nous ñu ci mini football Wartane kan bi ñu Nigeria, si nous suñu gayndee daal dinañoo jàll ci demi-finale yi naamte sax joué wuñu dinañ waxtaanee itam mercato ak Fodé de touré Ismaïla Sarr ak Diao Baldé Keita ñu àddu Olympique ci Jeux olympiques yi waxtaanee présent présent Macky Sall ci athlète sénégalais yi dinañ daal di jeexalee suñu revue d'actualité ak làmb ci diggante Papa ak Siteu invité ci tournoi Kosofa bi ñu amalee fële ci Afrique du Sud équipe nationale du Sénégal bi nga xam ni joueur locaux yi ñoo ko daal di représenté dinañ daal di jouer demi-finale contre Eswatini lay doon tey bu joté ndaw Joseph Koto yooyee am nañu yéene daal di jàll ci finale compétition Boblé, ñu jàll ci mini football waxtaanee kan bi ñu amalee ca Nigeria suñuy génne dañoo daal di qualifié ci demi-finale yi naam sax joué wuñu quart de finale contre Côte d'Ivoire ndaxte Côte d'Ivoire dafa daal di forfait ginnaaw ba mu indee ay may yu niroog may yu Sénégal ci kaw loolu lañ daal di ne Côte d'Ivoire dafa changer de changer maillot waye ba gaynde yi 45 minutes di xaar ivoirien ci le ivoirien yoy daal di xamle ne ñu maillot pour échange ci lolu lañ faire di sukkandikoo ci règlement mini football daal di disqualifier Côte d'Ivoire au profit de l'équipe nationale du Sénégal waxtaanee mercato daal di tàmbali ak Ismaïla Sarr mi nga xam ne nii Liverpool daf ko bëgg ba léegi bu ñu sukkandikoo ci information yu jigee ca Angleterre Liverpool am na yéen recruter Ismaïla Sarr pour mu remplacer Shaqiri wala sax Origi mu nekk ci yoonu départ club bu Sadio pare na pour def 40 millions pour daal jënd Ismaïla Sarr ñu jàll ci Fodé Ballo-Touré mi nga xam ne nii am na accord ak AS Milan visite médicale bi ak signature contrat et que montant transfert bi ñu ngi ko jàpp ci 4,5 millions d'euros ñu jeexalee suñu point mercato ak Diao Baldé Keita mi nga xam ne ni Inter de Milan daal dina fësal bëgg-bëggam daal di koy jënd bu ñu sukkandikoo ci agent wu joueur boobule Inter de Milan daal dina fësal yéeneem daal di recruter Diao Baldé Keita ci mercato bi ñu fàttali leen ne attaquant sénégalais boobee mi ngi sous contrat jusqu'à 2022 ak AS Monaco ñu daal di jàll ci Jeux olympiques bi nar a door tey ci bi fële ci Tokyo président Macky Sall daal dina àddu démb jëmale ci boobu compétition si conseil des ministres bi ñu amal Macky Sall daal dina wax ministère des sports Matar ba mu daal di def kémta lay kàttanam ba athlètes sénégalais yi nekk si conditions yu baax ba mën a def participation bu am solo ñu fàttali leen ne Sénégal am na athlètes yu ko nar a représenté ci boobu compétition bi nga xam ne ni cérémonie d'ouverture bi Macky Sall dina ko teewee ñu jeexalee suñu revue d'actualité ak lamb ji dox ci diggante Papa Sow ak Cité te ñu jàpp ko le premier août bii di ñëw si arène nationale ci open press bi doon amal Siteu daal dina yekk lu mel ni xamee Modou Lo ba noppi daal di wax ne combat dina am xeex dina am bëree open press bi ngeen mën a suivre ci sport loolu moo nekkoon seen dernier point ci revue d'actualité bi di leen jox dig daje lundi incha allah. Le site numéro 1 du sport au Sénégal sport.com est maintenant disponible en version application mobile sur iOS et Android.